ci dara. luñ ko doon toppee. man xaw ma sax liñ koy toppee parce que man nanguwuma koo wax ku ma laaj mu ne leen bu leen ko wax sama yaay dañ koy toppee xawuma ko mhm. waaye daa dafa wàcc liggéey di ñibbi ne sama néeg la jëm parce que jamono yooyu la doon taw taw bu metti mhm. fa lañ ko jàppee. d'accord dégg nga. Mhm. ma ñibbisee ma nekk ci nekk ci nekk ci man kese yaay kii laa doon taseel foofu su ma ñëwee toog moom mu ngi mel ni ku feebar ñaari malaat yi daje. mais moom day bàyyi boppam mooy que ne ma sama bos mag la yow yaa yor xale. sa doom ñaataat la am. ren la matal vingt ren la matal vingt ans. dégg nga lu mu doon liggéey. moom day ambulant. da doon jàng. Mhm. sama ñàkk wér moo tax mu bàyyi njàngam. ba mu bàyyi jàng ak léegi na deux ans la mu ne ma yaay bàyyi ma arrêté di la jàppale. jàppale boobu affaire bi mun maa fexe ba wér ma lijjanti soixante mille na ma dama dëkk ba faju yi ci yoon boobu laa nekk ñu jàpp ko sama ginnaaw. ci laa toog ba yàlla boole maak ñii ñu may defal su ma duggee maman lu si wax yaa Seyda ñoom ñëpp ku ci nekk ku ma si jël daal wax ak man wax joo xamante ne tax na ba ma jàpp si yàlla xam ne kon ndogal la parce que maa ñoom ñoo bokk li ñuy dund. Mm-hmm. waaye ngay dund benn affaire gisoo ko la si jàppale dafa metti dafa metti mm-hmm. te mbirum kaso mooy loo xamante ne tey jii boo si jàppee xale ñu xam nu mu demee dañ koy jàppee leneen fekk du loolu xale duñu ay bandi mm-hmm. ku leen xool xam ne duñu ay bandi mais mi ngi koy wax léegi force spéciale mission commando yooyu lañ leen di wax association de malfaiteurs yooyu lañ leen déggee loolu ñu koy toppee ñeneen ñi sa doom ñu topp ko lan nga yëg métit parce que damay xam ne lu ñoom li ñu leen di toppee moom la ñuy toppee sama doom mhm. lu may yëg mooy métit rek waaye sant yàlla rek léegi nag dañuy wax ne moom comme jeex na nañ bàyyi xale yi ñu génn mhm. xale yi defuñu fa dara xanaa gën a yàqu rek

damay xoolee ba ba sët wicc damay xoolee ba ba sët wicc su ma tiimee lekk damay xiif ba yëg ne xiif naa mais su ma tiimee lekk di lekk ma xalaat ne yóbbu lu ma ko lekk rek jug naa parce que du lekk bàyyi sama doom daaw lekk bàyyam d'accord nañu ci euh, dellu siwaat Adama Camara yow nga nekk euh, professeur espagnol bokk nga ci ñi nga xam ne tegoon nañ leen loxo waaye yow yaa ngi woon foofee ca euh, Tambacounda bu fekkoon mën nga waxaat dellusiwaat ci sa arrestation naka la demee. voilà donc Ngoné maa ngi lay nuyaat maa ngi lay nuyuwaat donc euh, surtout damay avant may tontu sa question bi damay euh, revenir si collectif des familles des détenus parce que man dama jàpp ne ñii dañ leen war a jàppale. Mm-hmm. parce que vraiment lu ñuy xeex nii seen droit la. parce que ñu jàpp ay xale yu ndaw defuñu dara juste jaay leen doole yóbbu leen ci kaso c'est c'est vraiment dafa grave ci Sénégal bu nga xamante c'est un pays démocratique. Mm-hmm. ba pare sa démocratie et santé partout. Oui. donc vraiment. Mm-hmm. man prisonniers yi ñu libéré déjà les détenus déjà libérés. Mm-hmm. man ñoom lay invité ñu ñëw bokk ci xeex bi. ci collectif bi ci collectif bi surtout ça parce que ñun ñu ak ñoom ñoo nekkoon ci kaso bi. tey yàlla def na ñu ñu libéré ñu sant yàlla. mais comme ñoom ñu ngi ci biir donc waruñu génn téye suñu loxo yi peut-être ñu ne way comme man génn naa ci jeex na non non. Mm-hmm. nañ ñëw waxuñu ñu génn xeex déedéet. mais nañ génn au moins ñu def ay manifestation pacifiques pour exiger leur libération. Mm-hmm. parce que ñoom lu ñu jàppee parce que ñoom it lu ñu toppee ñoom loolu lañ leen toppee. léegi ñu ñu bàyyi ñu ñu ñu bàyyi ñun ñoom ñu bàyyi téye leen ci kaso bi donc c'est une injustice. donc ñu ngi ñaan Macky Sall mu bàyyi ñooñu lu ñu bàyyee na bàyyi ñooñu aussi. Mm-hmm. voilà concernant sama arrestation. voilà je pense que vraiment c'était une farce loolu laa ko mën a téye sax. pourquoi une farce. parce que gis nga ngoone. Hmm. lenn dama koy préciser aujourd'hui gis nga ñun les détenus de Koumpentoum ñun jàppuñu sur les lieux de manifestation. fu ñu leen jàppee. ñun presque nous sommes six détenus. Hmm. ñu jàpp yóbbu ñu si kaso bi. amul kenn ku nga xamante ne dañ laa fekk ngay manifester ñu jàpp la et c'est bien à préciser man personnellement dañ ma convoqué à travers sama proviseur mi nga xamante ne maa ngi koy nuyu de passage parce que il m'a beaucoup soutenu mmh. il m'a beaucoup soutenu là vraiment je tiens à le préciser moom moo ma woo mën a ma Camara ah man de waa section de recherche bu Tambacounda gendarmerie ñoom ñoo ma woo ma dem foofu noonu ñu jox ma convocation. Mhm. ñu ne nga dem wuyu brigade bu Koumpentoum ma ne ko ah moom mun a ma ne ko est-ce que wax nañ la motif bi ma ne ma ne ah nii lañ ma ko waxee. ñu ne ma en tout cas man ne ko léegi qu'est-ce qu'on va que da ma ko wax nii rek mais jotaguma convocation bi. parce que xam nga instant yooyu noonu dañoo si vous vous bien dañoo arrêté woon internet bi. voilà donc mun du ma la ko mën a envoyé parce que instant bii nii sama connexion bi normalul ma ne ko léegi qu'est-ce va faire léegi man jotuma convocation gisuma ko léegi qu'est-ce que je dois faire mu ne ma ah, en tout cas si j'ai à te demal wuyu mhm. ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ma ne ko d'accord ma dem wuyu le dimanche 4 juin mhm. ma dem wuyu mais bu ma xam na ne affaire yi dana métti parce que ku ma fekk ci permanence permanence bi ku ma fekk ci permanence bi dama yegg ma ma ma ma présenté wu mu ne ma ah yow yow yaa Adama Camara ma na ko waaw mun ne ma hé yow de affaire yi dana métti ci yow tey a un ASP. la ma hé yow affaire dana métti ci yow ma ne ko ah mu ne ma toogal fii mu nga xaar ma mu dem dugub bureau commandant xam naa wax na ko sûrement que Adama Camara ñëw na boobu. fekkoon na ñu jàpp ñoom Moussa Mbaye c'est lui le coordonnateur que je salue au passage quand même. oui qui est un qui est endurant. voilà parce que feebar na ci prison bi voilà tout dugg naay liberté provisoire euh, procureur bañ voilà donc euh, ak ñoom Waly Diouf un ami un frère Waly Diouf. un résistant à Waly Diouf et Alassane Douro aussi professeur de maths lui aussi ak el el ak kii euh, Serigne Mor Ndaw moom ci marché bi lañ ko fekk jàpp ko. def da doon jaay. da doon jaay ci biir marché bi xoolal no vraiment c' est grave oustaz moom presque da doon ñëw nemmeeku détenu ñu ñu jàppoon dèjà si ma parce que dafa am ñu nga xamante ne xale yu ñu nga xamante dañ leen jàppoon dèjà si manifestation bi mm. ñoom si ñoom lañ doon ñëw seet di leen indi lekk moom si lañ ko jàppee. andi lekk. comme ça ñu jàpp ko ñu jàpp leen man fekkoon naa ñooñu dèjà jàpp nañ leen. Mm-hmm. ba ma ñëwee bon ASP bi dem woo commandant bi commandant bi génn mën na ma yaay Adama Camara ma ne ko waaw mën na ma kaay. ma dugg bureau ba ma fekk capitaine euh, Diallo. Mhm. mooy l'OPJ l'officier de police judiciaire moom moo doon def enquête yi sax mu ñu ne ma toog ñu ne ma toogal ma toog voilà ñu ne ma ana sa carte ma joxe ñu jël samay filiation tout ça après mu ne ma kaay commandant ne ma kaay ñu génn ci biti mu ne euh, chef baaxum mu ne ko. yow jàpp nga seen tur de. non mais si mais hmm. normal <laughs> <laughs> voilà. donc mu ne ko mun ne chef baaxum mu ne ko kii escorter le comme un criminel il faut l'amener chez lui dans son appartement fouiller tout son appartement. pour faire euh, benn perquisition. merci beaucoup comme ça. ci la ñu mais kàddu yi ni ko waxee ni moom noonu la ko waxee. nii maa ngi taxaw nii la ko waxee mu ne ko monoteel le comme un criminel escorter le amener le chez lui fouiller tout son appartement. après. bon après ñu jë euh, baaxum ñëw monote ma de derrière comme un criminel un de premier degré alors ñu génne ma woo oto garci parce que boobu garci ñoo ñëwoon euh, pour euh, sécuriser les lieux mhm. ñaari oto garci génn ñu fees ñu ñu dugg ci oto yi def takk seen kii euh, kagul yi mel ni ku nga xamante ne benn prisonnier Guantanamo moom lañ nekk di escorter alors ñu dugal ma ci ginnaaw maal bi maal oto bi lañ ma teg teg ñaar garci yor seen i fetal yeneen ñaar oto garci toppuñu jàpp tali bi copindo yëpp a génn di ci saxu dañu xool forum mu ñu ne kii de monsieur Camara ñi naa seen ñu la Adama Camara yóbbu ma ba sama apartement ñu ne ma ana caabi bi parce que booba bañ ma convoqué noonu comme mag madame ak sama xale euh, bu am 4 ans ñoo nekkoon ci appartement bi boobu kii ni bébé bi moom juddoogul bébé